sur la sos war a reer man leen moo sama problème jos bu njëkk ba ak jos léegi dafa ute xol xool leen corpulence bi dafa pré dafa dafa pare moo tax ñuy wax waxi combat bi jos pare na bu yàgg pour combat bi ci ñoom la des dama gis jos boo xamante day dugg din day misgile te ko jël lamb ji teg ko ba nga simee ko fii amateur répond nangu ni jos dafa liggéey lu waral loolu waaw parce que lamb moom dafa nekk sama wàll mu nekk loo xamante ne il est temps ma ma téye ko parce que man lu ma njëkkoon sono mooy ñàkk gëm mystique xam nga rek affaire affaire kaana yaa ba nga xam ñëw jàpp njàpp jël chaîne bi xam nga te du làmb ñu jox ma ay galaaj bu xeeñee du ma ko laal xam nga. léegi bu xeeñee xun di laal. ah du ma laal bu njëkk. bu njëkk bërekat la mais léegi mbër la. waaw dama ne la bu njëkk. bërëkat la woon mais léegi mbër la en tout cas ñi ngi xaar avance bi ci la war a reer. lan lan mooy différence entre mbër ak bërëkat. ah non wax na li mu doon bañ léegi lépp lay nangu bu même bu xeeñee sax buñ ko joxee ne ko ñetti guux la da koy naan doo ko cee sangu. mais jox bu joxee kàllaay bi xeeñ ni ma ko naan. waaye loolu loolu. Moussa Ndoye Moussa Ndoye moo war a Moussa. sañu jël sama ragal nga doo jël sama avance. ma defaral ko bagage ma defal ko ba ne cur. rij ko rij ba gëj. rij rijaat. bu bees ma yow moo ko teree neex. bu dul Moussa Ndoye ma waroon ñëw. man non ciblé wu ma kenn. affaire Diène Kaïré bëgguma Diène nañ bàyyi di ma woo di wax Diène Kaïré sox bëréew maa Diène Kaïré Moussa Ndoye moo taxaw ci lamb yi mu ñëw tàlla ma loxo ne man la bëgg a bëreel na ñëw ñu bëreel pourquoi nga ne bëre ma ak Diène Kairé promoteur bu la seet si woon tey na seet diggante Diène Kairé billaay ma bëre moom Diène Kairé ñu ngi wax diggante mag Valdo moo tax voilà baax na baax ah, la bëgg Zos moom Moussa il est paré pour Moussa Ndoye mais Diène na dem bëre ak Valdo Moussa Ndoye ngay dégg Moussa Ndoye ragal nga eh tapet nga tapet nga man Zos maa ko wax ragal nga